c'est juste une visite technique war a ñëw ànd ak service technique yi fi nekk yu Sénélec pour ñëw xool si quartier bi xool si gox bi techniciens yi gën a nekk ci terrain bi jiitu si woon nañ fi bu yàgg ba defoon fi ab liggéey pour xool nan la yokkee réseau bi ba nga xam ni dina dëppoo ak ni nga xam ne noonu la dëkk bi di màggee loolu nag bu ngeen ko gisee day ab tàmbali bu ñu bu ñu def fii tey mais day programme boo xam ne bu yaatu bu yaatu la Sénégal gépp la la la daj rawatina cees gi ñu nekk cees gi nga xam fi nekk tey mën nañu wax ni ci euh, xibla yi Thiès yépp la fenn fu ci nekk dëkk bi ma ngi fay yokku fenn fu ci nekk service su état bi nga xam ne responsabilité am la mu indi infrastructure yi nga xam ne moom la nit ñi di soxla service yi état bi ñu ngi liggéey ci loolu rawatina ñun wàll wi nga xam ne moom la ñu ci dénk muy électricité donc service technique yi wu yi fi nekk ci wu kondigu seen directeur régional ak chef de service yeeg ñëpp wàcc nañ sur le terrain ni ñu koy defee tous les jours di xool li nga xam ne mooy besoin yu askan wi ci wàllu réseau électricité di def liggéey bi ci loo xam ni lu population yi yëgul la ñoom di ko def seen liggéey natt xool def évaluation xool lan la laaj ci wàllu koom ñu defar ba mu àgg ñu yéegal ci kaw mu dem ci seeni kilifa bu ñëwee foofu ñoom it ñu ñëw si séq ci waxtaan ak waa ministère bi ñu xool nan la ñuy defee ba loolu ñu saafara ko loolu nañ ci sant yàlla tey alhamdulilahi rabbil alamin am nañ ci jéego bu am solo moo tax ñu ñëw fii tey di tàmbali si fii ci fayu mais day leen dina daj koñ ni ma ko waxee dëkk yi nga xam ne quartier yi nga xam ne ci Thiès yëpp am na extension mais fii tam même fii ñu nekk nii phase yu baree bari la ndax am na liggéey bu ñu fiy njëkkee ndax wàll wi nga xam ne sax déjà am nañ courant ba pare xamal nañ ñu ni post bi fi nekk dafa faible ba tax na courant bi day faible lool lool ba li nit ñi soxla du ko mën post boobu dañ koy soppi mooy première phase bi dañ koy changer indi post boo xam dina attan li nga xam ne mooy besoin ñi nga xam ne déjà connecté wu nañ ci waaye it dinañ ci mën a dolli ñeneen ñoo xam ni post boobu dina leen jël en charge loolu benn étape beneen étape bi mooy ni ko waxee am na liggéey bu ñu defoon ci xayma li nga xam ne moom la ñuy soxla ci extension électricité bi xayma nañ ko ba tënk ko am nañu budget bu ko def ba indi nañ ko ministère ministre bi validé na ko ba fi mu ne nii liggéey rek moo ci des am na partie matériel boo xam ne ñëw na dañuy daal di tàmbali liggéey bi incha allahu rabbi li ci des yëpp continuer bañ a taxaw am na beneen troisième phase boo nga xam ne mooy fi nga xam ne nag moom réseau àggagu fa foofu aussi dinañ ko natt li ñu defee woon lu njëkk li indil ñu ko ñu seq ko ak kilifay Senelec yi yi nekk ci kaw ñu xool nan la ñuy defee ba saafara loolu li ma bëgg daal ngeen leeral ko ci loolu gën leen ko gën leen ko seedeel mooy le ministre Thierno Alassane responsabilité bi nga xam ne président dénk na ko te yéen ñëpp ñun ñëpp ñu xam ne responsabilité bu am maanaa la ndax lu jëm ci wàllu électricité ku ne xam na fa mu toll nit ñi responsabilité boobu jël na ko ak loxoom yépp ak ñun ñi nga xam ne ñu ngi ko ciy jàppale bis bu ne mi ngi ñu ciy soññ suba ak ngoon tey daf ma forcé ni ma bàyyi li ngay def nga dem Dakar nga dem Thiès fekke ji loolu ndax dama noonu rek xëy na service technique mën nañoo ñëw ñoom ak ñi fi fekk ñu def tour bi dina doy pour ñu mën a démarrer mun ma noonoo dem fa ndax dama bëgg population yi xam ni loolu sama itte la te maa ngi ci taxaw suba ngoon loolu daal bu ma amee seede boo xam ne moom laa mun ma ñàkk def mooy boobu dalal ci seen xel ngeen xam ni ni mu leen préoccupé ñor leen doon seen soxla noonu la doonee soxla ministre bi mu ciy dox di ci wax suba su nekk